الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله asalaamu aleykum mbokk jullit yi ginnaaw buñ sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi fàttali ni comme nuñ ko doon defee ci at yi passé ni suñu ustaas yi jógee Dakar ñoom ustaas Seydou Ly ñoom Bachir Masali dañuy ñëw defaral ñu ay waxtaan ay conférence yi ren tam loolu lañ fas yéene commencé te ci loolu dañ am ñett programme bu ñu war a def tey dinañ def benn conférence yi suba ñu def ko côté Néma 2 gannaaw suba ñu def ko château d'eau incha allah léegi su ko defee dinañ bàyyi xel ci lu Oustaz di ñëw wax tey thème bi dina waxtaan ci wàllu la tataallaq bi gayrillah bu leen wequ ci kenn kudul yàlla wala bu leen yaakaar keneen kudul yàlla wala ngeen bañ a bëgg bëgg keneen kudul yàlla ci loolu la Oustaz di wax incha allah ngeen déglu baax ak xel. ndax ngeen am loo li nga xamante loolu ngeen di njëriñoo asalaamaaleykum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi xam naa ne lenn ci ñun danañ xaw a jaaxle waaye lii rek war nañu woon ne saxaaba yi ay jàmbaar lañu woon ndax ñun tey ay bali ndox moo tax mënuñu tranquille ay balu ndox ñoom ay bali jaasi moo daan dal seeni baat yéen a ngi dégg li ma wax ma ni sahabatul kiram ñu doon ànd ak yonent bi ay jaasi moo doon wàcc seen kaw ay jaasi bopp yi di naaw bëri di luqeeku bakkan yi dagg nopp yi dagg baat yi dagg ñu lan mooy wàcc suñu kaw léegi nii ndox te yéen ñëpp jàng ngeen ne ndox lan la yërmande la dafa am benn buur bu ànd ak ay mbokkam ci àll bi ndeysaan taw bi di taw comme nii muy dënu melex yi di génn mu daal di woo mbokk mi ne ko haada min asaari rahmatillah izan fa kayfa iza ghadiba mu ne ko li ngay gis nii dënu yi ak lëndëm bi ak melax bi ak xaacu yi nga xam ne moom la dënu bi di xaacu mu ne ko lii yërmande yàlla la kon si yàlla meree nu muy mel lii yërmande la kon kon war nañoo mun a toog tranquillement ñu déglu li nga xam ne moom moo tax ñu ñëw fii ñu bàyyi ci sunu xel puisque tomb bi ñu bëgg a waxtaanee nekkul tomb bu neex neex a dégg kooku benn la ñaareel mooy dafa bokk ci tomb yi nga xam ne doomu aadama su eggagul foofu rek ak njulliteem des na foog nga egg foofu sa jullit di doog a dëgër sa jullit di doog a nekk mais bu fekkee yeggagoo foofu rek da ngay dese lu mel noonu nag suñ koy waxtaane dafa laaj ab jullit bi nga xam ne teew na fa mu daal di xerewlu ak xelam ak xolam pour lan pour mu mun a jëriñu mais bu fekkente ne da nga bàyyi xel mbedd mi da nga bàyyi xel xew-xew yi nga xam ne moo xew ci sa kaw doo mën a doo mën a doo mën a jëriñu yal na yàlla fay mbokk bi nga xam ne moom moo jiite waxtaan wi ubbi na ko mu ne tomb bi mooy laa tataallaq bi xayrillah mooy bul aju ci kudul yàlla bul bëgg kudul yàlla bul gëm kudul yàlla bul topp kudul yàlla bul ragal kudul yàlla bul tiit kudul yàlla bul jàq kudul yàlla lu tax ñu tànn tomb bi mooy xam ngeen ne seen boor yi dafa am ay mbir yu bare bari yu fi xew wala yu fi nekk te ay jullit nekk fi waaye jullit yi wala balaa ñu doon nekk ay jullit dañoo bàyyeekoo ci yooyu daal di duggundoo ak lislaam bi daal di indaale seen yooyu ñu gëmoon balaa ñuy nekk ay jullit benn misaal rek laay joxe démb jàkka bi ñu jullee fajar démb la xaw ma barki démb jàkka ji daanaka mën naa ne waa jàkka jëpp dañoo takk ay lam démb laa wax wala barki démb su ma juumulee fële ci guddoom guddoom fi ñu jullee suba jàkka ji ñëpp a takk lam koo nuyu rek fajar gi mu ngi takk benn lam am na ñoo xam ni sax ñaar lañ boole takk ñaar loolu xam ngeen ne ñooñu ay jullit lañ kenn ñemewul ne ñooñu duñu ay jullit ndax yaa ngi ñoom yéen a julleendoo fajar ci jàkk bi waaye lan moo tax ba léegi ñoom yooyu bàyyiwuñu ko c'est parce que dafa am lu leerul seen bopp yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam gis na benn waay joo xam ne waa ji bàggu or la takk ci biir marché yonent bi bàyyi lim doon def bàyyi lim doon dox bàyyi lim doon wax ñëw ba ci waa ji jàpp ci baaraam bi rocc ci bàgg bi daal di koy sànni ci suuf yonent bi ne waa ji soo faatu woon jaaro bii nekk ci sa loxo dina nekk benn xalu safara bu lay lakk yonent bi daal di woon waa ji ginnaaw waa marché bi ñu ne waa ji jëlal sa jaaro yonent dem na mu ne leen yonent du tekki xalu safara sama loxo ma koy takka kon dina jaadu jullit yi ñu leen di leeralal seen pas-pas seen wàllu diine seen ngëm-ngëm ndax kat diine lislaam du nangu du nangu nga indaale say aada wala nga indaale say xarbaax wala sa cosaan ci biir diine bi islaam du ko nangu yaa ayyuha alladina amanu udxulu fi silmi kaffa yéen ñi gëm yàlla diine ji jël leen lépp dugg leen ci lépp loolu lañu yàlla wax yéen ñi gëm yàlla diine ji dugg leen ci lépp maanaam munoo ŋarale munoo ŋarale munoo nekk ci lislaam benn tànk sa beneen tànk bi nekk ci sa xeet ci sa aada wala ci sa cosaan wala ci sa bëgg-bëgg wala ci sa xar baax loolu munul nekk benn rek nga mun a def imma shakiran wa imma kafura da ngay gëm yàlla kese kese kese mu leer na yow jullit nga wala nga nekk leneen mu leer na yow loon nga lan moo tax su ngeen di lim mbir yi da ngeen di gis am na al muslim moom mooy kan mooy jullit am na al kaafir mooy kan mooy yéeféer am na al mushrik mooy kan mooy kuy bokkaale kooku mooy mushrik kooku di bokkaale nag jullit la wala du jullit jullit la loolu moo tax yàlla di wax ne wa ma yumin aksarahum billah illa wahum mushrikun ñu ëpp ci nit ñi duñu gëm yàlla lu dul bi ñuy gëm yàlla dañuy indaale ay mbir ay mbir la ñuy indaale te mbir yooyu nag soo ko bàyyiwul rek doo mën a nekk jullit il faut nga bàyyi mbir yooyu loolu moo tax lu mel ne tawxiid nekk opération opération tawhid opération la lan la lan la waa ji feebar bañ ko war ko opéré mooy dafa am ay mbir yoo xam ne dafa nekk ci xol bi tey mën ngaa feebar ci sa yaram bi nga feebaree ci sa yaram pour nga nekk dëgg dëgg dëgg dëgg ku wér mooy bi nga ñëwee ci docteur bi daf laa wax ne sa xol bi il faut ñu xotti ko ndax dafa am ay bul deret yu ci nekk xol bi il faut ñu raxas ko ba mu set su boobaa bu docteur bi waxee loolu yow malade bu feebar bi looy wax d'accord naa wala d'accord ma da nga naan alhamdulilah docteur maa ngi sant yàlla xam nga docteur lan moo ma fi indi mu ne ah nga ne ko faju rek noo mu ne def ba ma wér rek ba ñibbi sama kër rek docteur jàppale ma ci alaysa kazalik du loolu ngay wax léegi nag benn waaye ngi nii boo xam ne moom tamit ci lislaam dafa feebar bi mu ñëwee feebaram nekkul feebaru yaram jógal nga dem toog ne yóbbaale sa sëy jëla seize bi jox ko feebaram feebaru lan la mooy dafa am yu mu dugal ci xolam yoo xam ni daf koy gàllankoor ba du egg ci yàlla tabaraka wa taala alhamdulilah mbokk yi ñu ngi di fàttali ba tey rek sunu tomb bi nga xam ne ci lañ nekkoon te mooy bul aj sa xol bi ci kudul yàlla xam ngeen ne tey li ëpp ci nit ñi nga xam ne dañoo am ay problème wala ñu am ay njàqare wala ñu am ay jafe-jafe dara waralu ko lu dul aj seen xol ci kudul yàlla tabaraka wa taala soo xasee jël sa xol dugal ci lu dul yàlla amatoo sécurité yéen a ngi dégg lu baax jullit su xasee jël leneen dugal ci biir xolam bëgg a jël yàlla dugal ci biir xol bi dootul am sécurité su doon portable la dañ naan amatul réseau portable bi mu ngi fi pis bi mu ngi fi bu yeboo mun nga cee def crédit lu la neex waaye boobu wootee du dem mooy aj sa xol ci kudul yàlla ndax mënoo nekk julit bëgg a jël leneen dugal sa biir xol loolu mënul nekk loolu tey moo indil nit ñi jafe-jafe yu bare bare bare ak ay problème su boobaa nag xam nga looy mujj nekk da ngay mujj nekk esclave suñ la waxee na nga taxaw ci sëlëbe yoon nga simmeeku yaramu neen minuit nga sangu su la ko benn jalang waxee da nga koy def su sa bagage yi réeroon nga bëgg bagage yi feeñ nga dem benn waay mu ne la dangay bàyyi ba guddi nga simmeeku yaramu neen nga diwoo doomu taal nga bërëngu ci suuf si su guddee danga koy def te maal asaf kooku daf koy def ba pare bu xëyee suba fajar mu jàpp dem jàkk loolu mënul nekk yàlla rek tabaraka wa taala bokk na ci borom bi li mu doon wax ci quraan mooy yowma alxiyama mu ne yowma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allah bi qalbin salim yowma alxiyama mu ne bis la boo xam ne kenn du fa jëriñu lu dul ku fa ñëw bi ngay ñëw ci yàlla tabaraka wa taala fekk sa xol bi kenn nekk ci ku dul yàlla ibrahima alayhi salaam laaj na yàlla wan ma nooy dundale ku dee yàlla mu ne ko awalam tumin qaala bala walakin li yatma inna qalbi yàlla gëm naa de waaye damaa bëgg sama ngëm-ngëm boobu mu dal nga xam ne dootuma jax-jaxi dootuma jàq-jàqal dootuma sikki sàkk dootuma déngi-déngi mbokk yi soo ajee ci soxal ku dul yàlla da ngay mujj a nekk jaamu nit ñi ndax lan ndax da ngay soxlaal nit ñi soo demee ci nit ñi ñu sant la seeni mbir nga leen koy defal pour ñu defal la li nga bëgg waaye bu fekkee yàlla rek nga gëm dootoo am aajo ci doomu aadama yi lan moo tax sunu ngëm mu des c'est parce que lu ñu war a jox yàlla lépp moom moo des dafa am lu ñu jox yàlla am lu ñu jox nit am lu ñu jox ay buxaaba am lu ñu jox ay gisaanekat am lu ñu jox ay seetkat am lu ñu jox yéen ñi nekk fii yéen a xam ñooñu nu ngeen leen di tuddee dafa am lu ñu jox ñooñu léeg-léeg sax nga gis kenn am problème ci koñ bi ki nga amal problème ne la yow man ngay fontoo di nga xam man ak yow la ñu ne la demal nga baalu ju ko non non demal demal demal demal parce que kii ku garaaw la nga gis waa ji ndeysaan ñëw toroxlu ci kanam kooku suufe suufe lu wàcc lu tax parce que gëmul yàlla kese ibrahima alayhi salaam bi mu tojee xërëm yi mu daaneel leen gars yi ne ko ne yow ibrahima di nga am problème di nga dee lan la leen wax allazina amanu walam yulbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amn hum muhtadun gars yi ne ko ibrahima di nga dee mu ne wa fa kayfa axaafu ma tushrikun man lan laay ragalee yéen li ngeen bokkaale yéen ñi bokkaale ragalu leen man mi bokkaalewul may tiit foofu la yàlla wax ne ñi gëm yàlla seen xol seen ngëm jaxase wuñ ci dara dara dara lu dul yàlla ñooñu ñooñ ñoo am sécurité ñooñu ñoom ñooy jullit mbokk yi nit dafa war a génn ci xolam lépp lu dul yàlla même bu doon sa jëkkër la même bu doon sa papa la même bu doon sa yaay la même bu doon sa doom la ak ku mu mën a nekk yàlla rek moom mooy nekk soxal nga nekk jullit yàlla rek nit kooku loo koy bëgg bëgg bëgg bëgg loo koy jege jege jege jege su fekkee mu ngi des ci sa xol bi mi yaa ngi koy dendale ak yàlla daf lay yàqal même bu dee àdduna waxuma sax nit même bu dee xaalis même bu doon portable même bu doon yére soo ko dendalee ak yàlla rek yaa ngi am problème moo tax il faut nga génne loolu yépp wala tataallaq bi xayrillah képp ku jël xolam dugal ci leneen lu dul yàlla wala keneen ku dul yàlla ci ay jafe-jafe lay nekk yàlla rek moom mooy dindi problème yàlla dong mooy faj feebar yàlla mooy saafara jàngoro ibrahima bu mu feebaree lan la wax wa isa maritu fa huwa yashfini su ma feebaree yàlla moo may faj waxul médecin moo may faj waxul jalan moo may faj waxul keneen moo may faj lan la wax su ma feebaree yàlla moo may faj moo tax bokkaale nekk mbir mu ndaw ashirku axfa min dabibi nam la bokkaale dafa sew di nga gis léeg-léeg ci ñun koo xam ne gëm na yàlla trop waaye mu xaw a feebar feebar bi xaw a yàgg rek mu commencé dem di di seetlu ci ñu takkal ko wëñ bu weex wëñ bu xonq wëñ bu ñuul mu commencé di ko takk ci baat bi commencé di ko nëbb yëkkati kol bi mbubb mi fii affaire bi nekk ci biir lu ku mel noonu tey soo ko gisee nga ne ko yow lii lu tax nga def ko def naa non sama feebar bi dafa yàgg te te faju damay faju rek faju dagan na yàlla yàlla yonent bi moo ne na ngeen faju mais waxul nañ fajoolu araam dañ leen nga fajoolu dagan bu dee ci jigéen ñi la tamit kasaalik nga gis jigéen joo xam dafa commencé am problème rek commencé dem ci sëriñ tariyaax yi di leen neexal ay bagage am moo tax fokk ñu xam ne jullit du mën a nekk jullit lu dul xolam bi mu dugal ci yàlla kese kese kese mbokk yi yàlla moomu tabaraka wa taala moom mooy nangu ñaan moom mooy dindi ay problème moom mooy dindi ay njàqare képp ku am jafe-jafe yàlla moo la koy dindil yàlla moo ñu gën a yërëm suñu ndey ak suñu baay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis na benn jigéen buy nàmpal mu laaj saxaaba yi mu ne ndax ndaw si suñ ko ne woon jëlal sa doom bi nga sànni ko ci safara bi ndax ndaw si dina ko def nit ñi ne déedéet abadan mu ne yàlla moo leen gën a yërëm ndaw si ci ndeyam ak baayam kon yàlla moo ñu gën a bëgg yàlla moom nga xam ne moo ñu gën a bëgg nag suñu waxee dañoo war a dégg suñu santee dañoo war a def suñu teree dañoo war a bàyyi bu fekkee li ñuy wax dëgg la xam na benn jigéen bu tudd Rabiat al Adawi da doon wax laytaka tarda wala anaamu ridaabu yàlla soo kontaanee ku mer affaire am la loolu mooy pas-pasu julli maanaam yow sa kot sa mbir yëpp ci kaw suuf lan nga war a def mooy li Moussa waxoon Moussa ba ko ba mu ba ba ko yàlla convoqué mooy waa banu Israël waa banu Israël di yéex yéexlu Moussa dafa daw dem li mu ñëwee yàlla mu ne ko Moussa ana ñi nga war a àndal mu ne wa ajjaltu ilayka rabbi li torba man yàlla yàkkamti naa ñëw ci yow ngir nga kontaan ci man jullit loolu mooy pas-pasam mooy chaque jour yàlla kontaan ci yow ngay xool mais doo xool Samba doo xool Demba doo xool Moodu doo xool Yero doo xool kenn yàlla kontaan ci yow rek mbokk yi boo jàngee bu ñu jàngee histoire siira wala ñu jàng xabaaru gaa yu baax yi fi jaaroon ci ay borom xam-xam ci ay buur ci ay xulafa ñu remplacé woon yonent yi wala ay ministre ci nit ñu baax ñi ak nit ñu bon ñi danañ am yëg-yëg bu leer ne anna man taallaqa billahi wa atasama bihi wa taqarraba ilayhi bil amali salih fa inna allaha aza wa jalla yarfau qadrahu bu ñu jàngee histoire laa wax danañ gis ne ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo jàppoon ci yàlla tabaraka wa taala yàlla yëkkati na leen képp ku bàyyi woon yàlla yàlla daaneel na la képp ku jàppoon ci yàlla di ko jaam di jëf-jëf ju baax nga teg yàlla rek sa kanam nga sànni lépp ci ginnaaw yàlla teddal na la yàlla teral na la yàlla jox na la taraanga yàlla teg na la ci kaw ba ñëpp di la dégg su ñuy joxe misaal jël leen bilaal bilaal nit ku lan la woon nit ku ñuul fan la jóge woon Éthiopie keroog ba mu ñëwee wax ashadu an la ilaha illa allah wa ashadu anna muhammad rasulullah pourtant du arab ana abu jahlin moog bilaal kan moo gën a dégg arab ana abu taalib ana abu lahab ñoog bilaal kan moo gën a nekk sang ñoom waaye bilaal lan la ko yàlla fayee keroog ba mu toppee yàlla kese bëgg yàlla kese dugal yàlla kese ci xolam lan la ko yàlla fayee mu nekk muazzinu rasul sallallahu alayhi wa sallam mu nekk muazzinu rasul yonent bi julli bu mu mës a julli bilaal moo ko noon xoolal loolu yàlla fayee ko bilaal di dox ci kaw suuf ay tànkam di yëngatu biir aljanna te mu ngi dox ci suuf deewul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg biir këram aljanna mu dégg ay tànk di yëngatu mu ne waaw jibril lan moo yëngatu fii jibril mu ne ko tànku bilaal bilaal mooy la tànkam di yëngatu fii xoola ku nekk ci suuf sa tànk di yëngatu kaw asamaan lan moo tax yàlla fay ko loolu bi yonent bi ñëwaatee laylatul isra wal mi'raj mu ne bilaal ah man de jaaxle naa bilaal lan mooy sa mbir nga nekk ci kaw suuf di dox sa tànk di yëngatu aljanna lan nga defal yàlla mu ne saa yu ma jàppee njàpp mu bees dinaa julli ñaari raak kon lan la yàlla faye bilaal ba bilaal sànnee àdduna sànni lépp topp yàlla kese kese jël yàlla kese dugal ci xolam yàlla fay na bilaal mu nekk mangasini yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk àndandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mu nekk mu nekk mu azinu rasul sallallahu alayhi wa sallam ndax bilaal kese la yàlla yëkkati bilaal ci kaw yëkkati dayoon tey kenn mënul lim sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu jeex limoo bilaal te tey bu ñu doon lim sahaaba yi bu ñuy lim fukki sahaaba wala fukk ak juróom bilaal day nekk ci biir ci sahaaba yu mag yu àndoon ak yonent wala bu ñuy lim ci lislaam ñi gën a mag àndoon ak yonent bi jege ko bilaal du génn ci vingt premiers yi te xoolal fu mu bàyyee ko jaam nekk nit ku ñuul moo tax mbiru islam du mbiru deret du mbiru yaram du mbiru am-am mbiru lan la gëm islam problème am gëm la mais du kii moo weex kii moo xonq kii moo jaune kii mooy arabe kii français la kii anglais la kii africain la déedéet loolu du problème mu l'islam problème islam problème mu iman la iman ku la ëpp iman rek moo la gën a jege yàlla inna akramakum inda allahi aksarukum amwalan aksarakum nasaban aksarukum quwa inna akramakum inda allahi atqaakum ku la gën a gëm yàlla rek moo la gën a jege yàlla ku la gën a wedd yàlla ak lu mu bokk ak ku baax ak ku baax ku ko jur dafa sori mbokk yi ibrahima papaam anamu papa ibrahima fan la nekk pourtant ibrahima ku baax la nuux ana jabaram nuux ana doomam do ku toll ne nuux seyxul mursalin numéro un ci ulul azmi min ar rusul mu am doom doom bi nekk safara kon mbir bi fan la nekk luut ana jabaram waaye mbokk yi firawna ana jabaram firawna léeg-léeg ma laaj waa Dakar man leen ndax firawna am na turandoo Sénégal Casamance firawna am na fi turandoo ah mas ngeen ko gis am benn xale bu jaar ñu ne firawna kaay mas ngeen ko gis lu tax firawna amul turandoo parce que dafa bon parce que baaxul nit sax dina bon mais dina am turandoo am nañu bon mais am nañ turandoo mais xoolal firawna doo gis sax même yéeféer yi ci seen bopp ñuy tudde seen doom firawna parce que xam na ne baaxul waaye jabaram mi ngi aljanna lan la wax yàlla rabbi ibni li indaka baytan fil janna lan moo ko may loolu parce que dafa jege woon yàlla dafa joxoon xolam yàlla mu bàyyi firawna kon nit jullit li tax mu jege yàlla li tax yàlla di ko bëgg mooy xolam xelam bu mu ci dugal lenn lu dul yàlla ñaareel mooy salmaanul farisi salmaan fan la juddoo Perse waaye Salman jaral na ko mu wëri dëgg ba ñu jàpp ko def ko jaam daal koy jaay pour rek mu gis dëgg keroog ba mu xamee ne lii muy jaamu muy safara si du dëgg muy dem di wër dëgg ba dugg ci christianisme mu xam ne christianisme du dëgg mu génn ci muy wëri l'islam lan la ko lan la ko yàlla fay salmaanu minna ahla bayt yonent bi ne salmaanu minna pourtant bokkul bokkul ak yonent bi deret lan moo ko yëkkati foofu bëgg yàlla dugal yàlla ci xolam moo ko yëkkati ba mu romb ñoo xam ne ñoo fi nekkoon démb yonent ne salmaan ñépp ne amu ne salmaan ci man la bokk ci famille ala bayt rasul la bokk yonent bi tuddee ko albaahisu anil haqiqa mu romb fi ñoom abu taalib ñoom abu lahab ñoom abu jahlin nga xam ne ñoo yonent bi ñoo bokk deret waaye yonent bi yëkkati salmaan ndax dëgg gu mu doon wër kon nit soo bëggee am tiyaaba ëllëg boo bëggee dugg aljanna sa xol bul ci dugal kenn bul ci dugal lenn lu dul yàlla est-ce que salmaan kese la sohaybu ruumi sohayb dafa sànni alalam bàyyi ay jabaram bàyyi doomam bàyyi àdduna keroog ba muy gàddaay dafa gas pax ba mu xóot lu mu amoon ci alal lépp mu daal di koy suul mu daal di gàddu fettam ndeysaan génn biir Madina di dem yéeféer yi daal di koy yuuxu mu ne leen lan la ñu ne ko bi ngay ñëw Màkka faxiir nga woon amoo dara doo fi génn di yóbbaale alal ji mu ne alal ji soxlawuma ko maa ngi ni yorewuma ko ñu ne ana alal ji mu ne mu ngi sama digg kër sama digg néeg foofu laa gas ba mu xóot suul ko dem leen ngeen jël ko sinon su ngeen ma toppee di ngeen ma rey de mais balaa ngeen may rey sama fett yi dinaa ko jeexal ci yéen ndax sama fett yi du mooy dinaa ko dóor ba mu jeex te saa yi ma dóoree dinaa rey keroog ba ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam séenee muy ñëw moom Suhaybu Ruumi lan la wax rabiha albayu ya suhaybu mana mana li nga ko jënde jar na ko li nga ko jënde jar na ko lan la yàlla di wax ñi jël alaxira jënde ko àdduna yàlla mu ne ñooñu am nañ bénéfice waaye ñi jël àdduna jënde alaxira yàlla mu ne fama rabiha tijaratuhum fama kaanu muhtadin fama rabiha tijaratuhum fama kaanu muhtadin ñi jël àdduna jënde ko alaxira wala ñu jël góor jënde ko yàlla wala ñu jël jigéen jënde yàlla wala ñu jël alal jënde yàlla wala ñu jël dara jënde yàlla yàlla ñee na ñooñu perte nañ amuñu bénéfice amuñu bénéfice xam nga nit kañ lay am bénéfice ci commerce am mooy bu la yàlla jaralee yàlla mu jaral la xam nga bénéfice xam nga sa liggéey bi kañ lay barkeel bu la yàlla di surveiller ngay bàyyi yàlla xel ci sa liggéey bi hatta julli bi ngay julli soo ci bàyyiwul yàlla xel julli gi du baax yaa ngi julli allahu akbar yaa ngi xalaat match bi mi ngi waaj a tas est ce que sa équipe mu ngi égaliser na wala égaliser wul allahu akbar est ce que sama mbër bi mooy daan wala du daan allahu akbar ah sama far bi tey daf may seet si allahu akbar tey sama copine bi daf may seet si allahu akbar film bi na ga na naa gaaw allahu akbar ngay xool fa ma rabihat tijaratuhum wa ma kaanu muhtadin ñooñu amuñu bénéfice imam ali xam ngeen ko ndax xam ngeen Seydina ali su demoon xeex ñu gaañ ko ñu jam ko kañ lañ koy faj su julli jotee dañuy bàyyi ba mu ne allahu akbar gaay daw ñëw ndax su tax suy julli dootul yëg dootul sentir dara day yóbbu boppam ci yàlla yaay Aïcha loolu la nettali nee na yonent yàlla Muhammad bu toogoon ak ñun di waxtaan day reetaan day kaf waaye bu julli jotee day mel ne xamatuñu te su kaabaree di julli dañuy sentir ci dënn bi azizun ka azizul mirjal minal buka dañuy dégg dënn bi mu mel ne cin buy bax muy xir xir xir xir ay jooy alquran bi muy tagg ñi julli dëgg lan la wax qad aflaha al mu'minun allazina hum fi salatihim masha Allah wallazina hum anil lagwi anil lagwi la wax de lagwi foofu ñi nga xam ne dañuy bàyyi caaxaan waaye ñun xoolal ay film ay bëri match kankurang te dañoo jaamu yàlla ah kon Suhaybu Ruumi mu ngi nii keroog ba mu bàyyee àdduna bàyyi lépp topp yàlla lan la ko yonent bi wax rabihal bay ya Suhayb yàlla tabaraka wa taala dafa wàcce ci moom ab aaya ab aaya yàlla tabaraka wa taala dafa wàcce ci Suhayb aaya aaya bi lan la wa min annas man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah wallahu raufum bil ibad yàlla mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy jaayee seen bopp jënde ko yàlla maanaam yàlla jaral na leen lu nekk am na ci nit ñi ñoo xam ne yàlla jaral na leen lu nekk waaye ñun sunu soxna jaral na lu nekk da ngay gis benn benn benn xale bu góor bu bëgg benn xale bu jigéen nga ñëw yaayam ne la deux cent mille deux cent mille nga ni boo ma laajoon un million ma joxe ko jaral na la lu nekk ah lu tax yàlla jaral la loolu am na ñoo xam ne yàlla mënu leen a yee fajar ñu ñëw jàkk julli te buñ leen joxoon visa visa lañ gën a bëgg ak yàlla suñ la suñ amoon visa ñu leen avion bi Boeing bi trois heures du matin lay dem trois heures du matin boobu guddi la wala bëccëg wa waa ji xam nga lu muy def onze heures lay dem aéroport onze heures ñu ne ko trois heures ngay dem mu ne wu damay bañ a tardé bàyyi leen ma dem ma toog foofu rek garaawul amul problème fii rajo bi rajo bi jàkka bi jàkka bi ban heure la ñuy julli fajar heure baa ngi nii six heures ah six heures moins six la ñuy julli te tarawul la ñuy takk rajo quatre heures bilaal bi commencé ñëw allahu akbar allahu akbar ñëw leen wuyu ñëw leen wuyu yàlla solo nit ñi bañ a ñëw 4 heures 5 heures et demi mu ñëwaat 5 heures mu ñëw ñëw leen wuyu hayya ala sala nit ñi bañ a ñëw ba 6 heures mooy quart mu ne leen asalaatu xayru min annawmi julli moo gën nelaw nit ñi ñu ne ko laa annawmu xayru min asala isan bilaal répété waat asalaatu xayru min annawm nit ñi naan ko laa ci biir mbàjj yi annawm xayru min salaa ci biir mbàjj bi léegi kooku mu ne moom mu ne waa jooju nga xam ne dégg na asalaatu xayru min annaw mi mu bañ a yeewu bañ a julli ji bañ a dem fajar kooku nee na moom bëgg na yàlla xolam am na leneen lu ci nekk lu yàlla kese moo ci nekk est-ce que dëgg la du dëgg du dëgg képp ku dégg asalaatu xayru min annaw mi yeewu woo dem soo waxee bëgg nga yàlla nañ war nañ ko seetaan soo waxee sa xol bi yàlla kese moo ci nekk war nañ ko seetaan mbokk yi yàlla nee na am na ci nit ñi ñoo xam ne yàlla moo leen gën a ludul yàlla dañuy jaay seen bopp ngir yàlla mbokk yi am na ñeneen ñoo xam ne ba ñu bàyyee yàlla gis ngeen ñetti saxaabaa ngi ni yoo xam ne ñoom dañoo bàyyi lépp bëgg yàlla kese yàlla yëkkati leen ci jamono boo xam ne kenn xamu leen woon ñett ñi ma wax du ñu ay arab salman arab la lan la salman farisi la perse la iranien la sohib lan la ruumi romain bilal lan la africain xoolal ñii ñëpp yàlla yëkkati na leen ba ci kaw ana arab yi boobu pourtant ñu ngi ànd ak yonent bi waaye lan moo tax parce que ñii dañoo sànni lépp topp yàlla ñii duñu ay arab xam nga tey yaakaar nañ ne àddina bi ñu baax ñëpp arab la loolu la nit ñi foog sooy waxtaanee diine dañ yaakaar ne ñun ñun africain yi nii mënuñu am daraja bu kawe bu egg ci yàlla martaba mënuñu ko am ah kay bilal du arab moom ñun ñoo yem ñun kub waaye xoolal lu mu am ci yàlla sohayib du arab romain la waaye xool lu mu am ci yàlla salman du arab waaye xool lu mu am ci yàlla waaye xool leen ñii di ñëw mbokk yi saa yoo bàyyee yàlla ak daraja boo munta am da ngay daanu firawna xam ngeen firawna waxoon naa ko léegi firawna lan moo lan la jënde woon yàlla nguuram firawna buur la woon nguur gi gënal ko yàlla Moussa ñëw di ko woo ne ko tuub loolu waa bani Israil yëpp nga ànd ak ñoom ñëw ànd ak man ñu dem ci yàlla mu daal di bañ mu ne ko sama nguur gi moo ma gënal yàlla fa hashara fa naada fa qaala maaza ana rabbukumul a'la nguuram gënal ko yàlla moom firawna nan la ko yàlla def fa axadahu llahu nakaala al axira wal ula fa nabaznaahu fil yammi yàlla nee na ma jàpp ko nëkku ko ci ndoxum géej mu naan ba biir bi fees ma bàyyi ko foofu ma ni ko tey ñëpp dinañ la gis ba ñu xam ne doo yàlla bu fekkee da nga doon wax yow yaay yàlla ndax yàlla du dee yàlla dina dee dégg naa fii léegi am na ay yàlla yàlla ay ñuy gis yàlla am na fii ñëw na fii xam na fi ay nit yu gis yàlla ay nit yoo xam ne ñoom nee nañ gis nañ yàlla wala ñoom ñu ne ñoom yàlla lañ ndeysaan yàlla boo xam ne day day lekk suppu kaañ yi après mu jokk mu jékki-jékki mu jël satala mu dem duus yàlla boo xam ne bu guddee mu daal di sàngu mbaaj ak soxnaam kooku yàlla la dañuy dañuy nax suñu bopp rek ñoom Bilal ñoom Musa ñoom Suhayb ñoom Salman waxuñu woon ñoom dañuy gis yàlla waxuñu ne woon ñoom ay yàlla lañ te egg nañ ci yàlla ñoom eggoon nañ ci yàlla eggoon nañ ci yàlla te waxuñu ne gis nañ ko waxuñu ne woon ñoom buñ tëddee guddi dañuy gis yàlla waxuñu ko woon te mësuñu ko wax firaaw naa ngi nii daal di jënde nguuram ak yàlla fan la mujj yàlla toroxal ko nguur gi lan la ko jëriñ keroog ba ko yàlla jàppee di ko nëkk ci baax lu xal zoom lan la ko jëriñ ndax firaaw na kese la déedéet ak haamaan haamaan lan la jënde woon yàlla ministre nekk ministre tey ministre Sénégal yi duñ dem jàkk ndax xam ngeen benn ministre bu dëkk Ziguinchor buy dem jàkk ndax xam ngeen ko yow Ziguinchor ngeen dëkk Casamance ngeen dëkk dama leen di laaj gouvernement Sénégal am na ministre yu dëkk Casamance wala amul ndax ministre yooyu mos ngeen gis ñu ne dañuy dem fajar jàkk bii la ñuy jullee tisbaar jàkk bii la ñuy jullee timis jàkka bi la ñuy jullee gee jàkka bi la ñuy jullee ndax mos ngeen ko gis Sénégal xam ngeen ñi bokk ci ñi bokk ci nguur gi xam ngeen ñan ñooy dem jàkk chef de quartier yi chef de quartier chef de quartier yi rek ñooy dem jàkk sénateur yi duñ dem jàkk député yi duñ dem jàkk ah ministre yi duñ dem jàkk président bi du dem jàkk gis ngeen wala mos ngeen ko gis man de benn yoon laa ko mos a gis mooy korite ak tabaski te loolu sunna la korite ak tabaski boobu de laa ko gis te gisuma ko ni face à face télé laa koy gis télé télé kon firawna ba mu bàyyee yàlla yàlla da koo daaneel haamaan ba mu jëlee nekk ministre gënal ko yàlla yàlla daf koo daaneel akan xaaruun xaaruuna lan la jënde woon yàlla alalam alal muy ngand ngandlu inna qaaruuna kaana min qawmi muusa fa baga alayhim mu am alal loo xam ne daanaka alal bi caabi yi ay gëléem ñoo koy chargé ndax bëri waaye ba mu fantoowee yàlla alal bi gënal ko yàlla lan la yàlla wax fa xasafnaahu fa xasafnaahu wa bidaarihi yàlla ne dama wax suuf si na ko wann suuf si la ko yàlla wannuloo lan moo tax yàlla wannuloo ko suuf si mooy dafa bàyyi yàlla alal bi la dugal ci xol bi dugalul yàlla ci xolam Haamaan ministre yi fonction ministre bi la dugal ci xol bi dugalul yàlla Firawna nguur gi la dugal ci xolam dugalul yàlla ñi ñëpp yàlla daan leen di daaneel kon mbokk yi du ñooñu rek bëri na Umayya ibnu Xalaf moom lan moo ko tere egg ci yàlla askanam askan ngand ngand la tijaara commerce commerce commerce am moo ko gënoo yàlla ñu ne ko kaay bëgg yàlla mu bañ kaay topp yàlla mu bañ mu topp commerce yàlla daal di koy daaneel kon gis ngeen misaal ku topp nguur yàlla daaneel ko gis ngeen misaal ku topp ministre yàlla daaneel ko gis ngeen misaal ku topp alal yàlla daaneel ko gis ngeen misaal ku topp commerce yàlla daaneel ko akkan akkan ci ñoom koo xam ne moom askanam la toppoon askan di jaay ngand ngandulu muy abu jahlin askanam boo ko gënaloon yàlla waaye fan la mujj ak yàlla yàlla daaneel kon suñu xoolee ñaari ñaari kuréel yi kuréel bi nga xam ne dañoo topp yàlla kese bëgg yàlla kese lan ban résultat lañ am mooy yàlla dañoo egg ci yàlla yàlla yëkkati leen ngeen xool kuréel boo xam ne ay ngand lañ du ñu ñu ndaw histoire mu ngi bind seen tur ba léegi avant l'islam ba après l'islam lépp ñu ngi ko bind waaye ba ñu bàyyee yàlla fan lañ mujj soo demee ci bible nga fekk fa Firawna fekk fa Haamaan nga fekk fa Qaaruun waaye ñii ñëpp ba ñu bàyyee yàlla ku nekk am lu mu jënde yàlla fan la mujj ah léegi nag troisième tomb bi mooy ñaari kuréel yi lan lañ ciy jëlee ñaari groupe yi lan lañ ciy jëlee ndax mun naa ko am loolu laay laaj léegi ku nekk jël micro bi mu wax ma ñaari groupe yi lan lañ ciy jëlee asalaamaaleykum tàmbalil fii doxal gaay ku nekk jox ko mu wax